di sant sëriñ Touba di sant borom bi ci li mu ñu kàttanal ba nga xam ni mën nañu ñëw fii ci Touba bokkandoo ak jullit yëpp ak taalibe yëpp màggal gi nga xam ni moom lañu fi màggal si di ñaan suñu borom ni ko borom màggal gi waxe woon euh, liggéey bu réy bi mu liggéey euh, nekk ay xéewal pour mbindeef yëpp mbindeef yi romb na nit ñi rek toute la créature la ñaanal tawféex la ñaanal ay xéewal loolu nag yal na yàlla wàcce ko ci senegal yëpp ci ñu dëkk ci biir réew mi ak ñu nekk ci diaspora bi wàcce ko ci àddina bi yëpp coono yi yëg nañu ko xam nañu ko soññe yi ak yàkkamti gi nit ñi yàkkamti ma yëkkati sama kàddu ci situation réew mi yëg naa ko wante dañu nekk ci liggéey boo xam ni incha allah Sénégal li koy jëmale kanam du wax rek du critiquer rek du wax ne lii baax na lii baaxul puisque li baaxul moom ñëpp ko yëgandoo mais liggéey ci loo xam ni bis boo ko sottee ci Sénégal Sénégal def jéego bu mag jëm ci kanam ci loolu la ñu nekk incha allah bu egsee danañu ci waxtaan ak askan